عني نفى إبليس في بحر ما ينبع DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko la sa notification loolu mooy tax vidéo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf عني نفى إبليس في بحر ما ينبع ne yàlla moom mooy joxe yàlla mooy xañ ne moo tax yàlla waxoon ne wadaimul xaani ah wala muxtara bu len di leer bu len di saraxé di len dem ci nga xamante dañu ñak ba pare doylu waaw lan am mom la jox seen wa kër lan am moom la ñuy suturlawoo waaw nekkun di wër fenn di laaj fenn bu len di jox dem len ngeen jox ñooñu te xamna ne ñooñu tamit ñom ñoy ñi nga xamante ni ñoom ñoo mata jox bokk yi nak jamono ji mom doylu lu lu jafé la mais deug sax légui jamono ñaan la euh, xaaliss bu lew est-ce amati na fenn ah kay ak am xaaliss bu lew est-ce amati na fenn yow kay yow ya defut sa bop gëm-gëm ne xaaliss bu lew ni mëna nga am mu ne na kay li ngay liggéey lew na te doo si yore kenn ak loolu boo ko lekkee lew na la waaye bu fekkee ne da bëgg a teg eh, eh, nekk si nit ñi di def lu ñu wooye ay duggalante dugalante génnalante xaalis boobu mun a lew da ngaa doyluwut suñ tubaab rajo yàlla anu sax daanaa faral ñuy dégg ñu wax damaa xam wax ba xam sanat bi wér na wala déet ndax nit ñi moom dañuy faral waaye ala kulli am solo gi am solo moo tax ñooy nettali mooy daana faral di wax naan sàcc bi dafa yàkkamte sàcc bi dafa yàkkamte ndax loolu mu sàcc su wërsëgam la woon yàkkamti moo tax mu dem jëli jëli ko fukk fukk ko si nit ki waaye bu teewoon suñ bu teeyoon rek suñu borom dana ko jox loolu mu dem sàcc ndax wërsëgam la woon bu mu waroon a jot kon loolu tamit euh, ala kulli xaal xoñ ba xam wér na waaye sanat bi euh, waaye am solo gi mu am solo moo tax ñu si ñu koy joxe exemple ba pare yàlla suñu borom subhaanahu wa taala waxaat na si alxuraan ne euh, nit ñi de buñ ngërëmoon li leen yàlla jox ñu yem si gërëm li leen yàlla jox ñu yem si bañ di jàmbat doy loo loolu man yàlla dinaa leen gën di dolli te dinaa leen gën a xemmemtal sama samay jëf waaye dinaa leen gën a tabbal na yi gën a kawe te man yàlla naa leen gën a wërsëg lu ëpp loolu walaw annahum raddu ma aataahum allah wa rasuluhu wa xaalu asbuna allah sa yutina allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi la raaxibun la tamit mbokk yi euh, lu am solo la te lu mat a bàyyi xel la yent bi sallallahu alaihi wasallam dafa massa wax ab hadith bu am solo dafa waxoon ne de len ragal yalla de len ragal yalla waye nak ragal yalla gi na ngeen ci boole di rafetal li ngeen di sakku moy nit ki limi muy na sa rafetal jëm jëm sa loola nako selal su fekke ab contrat la bu mu signé ak doom nit mu jël ko diko fay weer na respecté contrat boobu bu mu si bu mu si dugal ay tappale bu mu tardé té amul ngant lan ko sant nakoy def su amé ngant dem sa kaka ko sa mu garal ko lola su fekkee nak sa yifi bop la tamit rafetal rafet rafetal ni ngay jëflante ak nit ñi bu fekkee yaa bitik bi jaay fexal ba ni ngay jëflante ak nit ñi na rafet moy soy pc bul jël ak kenn wala bok bu ëpp sax yo fexal na ëpp sa ko way bu ëpp ci yow bu ci dugal ay ay njublang bu ci dugal lo xamanteni man mën nga see da daanu suñu borom moo tax yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne ragal leen yalla te ngeen rafetal ni ngeen di outé alal moy ni ngeen di alal ngeen ngeen rafetal ko jamono ji nag moom rafetal wutum alal xamoo fu nekk waaye dafa dafa jafe lool jafe na lool ala kulli xaal ndax jàpp na ne da dégg sax ñu naan la xaalis moom léegi mënoo koo liggéey faaw nga koy business doo ko mën a am. faaw ngay business mooy dèjà kon xaalis bala nga ko am mooy faaw ngay nax nit ñi di teg di dugalante a gën doo ko am xaalis ah kay mën na mën des na kaa am si si si wutin wu sell mën des na koo am si loo xamante ni boo lekkee boo ko lekkee mu leew la te mbokk yi danse gën gën gën nekk mu nga jox sa njaboot ñuy lekk mu leer na ñëw lii ñuy lekk lii ñuy lekk léwut loolu mbokk yi lu ko gën a nekk dans si amut moo tax ñun tam saa sa waxoon ne ragal leen yàlla te ngeen di rafetal ni ngeen wute mooy ittaqullah ya ayyuhan naas ittaqullah wajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuuta atta tastawi risqaha gis nga nit ki moom mënut a faatu te amut wërsëgam waa min daabatin fil ardi illa ala llahi risquha waaw foo mën a dem si àdduna bi sa wërsëg yàlla moo ko yor yàlla moo yor sa wërsëg li nga war a am ala kulli su fekkoon ne àdduna benn fan nga fi am sax wërsëg googu day ñëw day tege sa loxo su fekkee ne waroo am tamit boo doon dem fa réew yi gën a sori Amérique ak Espagne ak fa nit ñi jëm te leer na la sa wërsëg moom ala kulli xaal moom ngay am. su fekkee tamit leer na la yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi Europe di sàkku te sa wërsëg nekk Sénégal ala kulli xaal sa wërsëg Sénégal nga koy jël si kon moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ra leen yàlla te ngeen rafetal ni ngeen wutee alal. waaw te nag fa taqullah wajmilu fi talab xusuma àlla wa haram gis ngeen ba leen di wut alal xool leen li nga xamante ni moom moo dagan ngeen di ko wut waaye tamit nag li nga xam dafa araam ngeen bàyyi ko te xam ne loolu bokkut si li nga xamante ni la yàlla yàlla digle moo taxoon yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ne doomu aadama munta doylu law kaana ibnu aadama waadiyaani min asahab labtaxaa saalisatan wala yamla u ibnu aadama illa turab gis nga fi mu jamono ji ki la ëpp xaalis boo ko laajee mën la aw ma xaalis ki am 1 million lan lay sàkku mooy day jëm a fexe am beneen million muy ñaar ki am ab junni day jëm fexe beneen muy ñaari junni waaye doylu doylu mbokk yi loolu lu jafe la nit ki dafa war di doylu dafa war di doylu waaw loolu tamit lu mat a bàyyi xel la mbokk yi nit ki nga xam dafa doylu ban jeexeen jeexeental la mën a am si digganteem ak nit ñi waaye digganteem ak boroomam borom xam-xam yi tënk nañ ko si point yi may waaj a wax bu njëkk bi nee nañ képp koo xamante ni dafa dafa dafa doylu mooy li yàlla joxe mu gërëm ko doylu li ko yàlla jox bañ a yóotu leneen loo xamante ni leer na la lii munu sa jot waaye doylu li ko yàlla jox kooku nee na da am lu ñu wooyee mahabbatullah sabilun li nay li mahabbatillah aw yoon la ngir nga am mëggeelu yàlla cofeelu yàlla te mbokk yi ab jaam bu ko yàlla bëggee mën naa am ay daraja yu kawe kawe kawe kawe kenn kenn ku nekk si ñun ñi bëgg yàlla bëgg la te alqanaa bokk na si yi muy joxe mooy sabilun li nay li mahabatillah aw yoon la ngir nga mën a am cofeelug yàlla mbëggeelug yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon tamit loolu donc point boobu donc bu ñu si yemoon doy na nit ki ma war a mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax doylu te mooy li ko yàlla jox mu gërëm ko te xam ne lii la ko yàlla wërsëgale bismillah waaye du moom du sol ay mbubb yu tilim ak di jàng arxuwaan ak yooyu d'accord comme ni mu xewee dañu euh, may yaata ñu bayyi xel bañ bañ suñu bakkan nit ki amna lu muy def lu bari top bakkan moko yobbe te imam busari waxon na bakkan moko comme an nafsu ka tifli in tuhmilhu dhabba ala hubbi ridai wa in taftimhu yanfatimi bakkan bi kom xale rek kom xale tay xale bi nga xam dafa juddu yaayam lu mu ko tamal lay am bu fekk dafa ko tamal namp ala kulli hal bamuy am ñetti at bu ko feral du fer waye nak soko feral rek nga fer xale kat xamul fer waye nak yaayam mo koy feral mu do ko fer bakkan to non la mel sa bakkan bi ko tamal saye su fekkee da nga tàmmal lu baax lu baax loolu rek la la la lay def am na ñoo xam ne fi mu nii lu nelaw nelaw na guddi am na heure boo xam ne bu xasee jël seen bakkan tàmm nañ ko xasee saye am na ñoo xam te ne lu xat seen tàmm nañ seen bakkan jàng alxuraan lu mu xat xat xat ak lu it itay am xam ne lu mu xat xat xat seen itam may na jàng xasida kon loolu mooy tàmmal sa bakkan lu baax waye amna na ñoo xam tamit japp ne lu mu xat xat xam mom surna bi mom dañ war nañu tux gën nga gatt mom fukki paquet cigarette loolu moy seen bakkan nga tamal tàmmal lu mu xat xat war nañu naan fukki kasse sangara wala kut butéel loolu sa bakkan nga tamal kon bu fekkee ne da nga tamal sa bakkan lu bon ah loolu sa bakkan ci loolu rek kon waaye fekkee ne da nga jël sa bakkan tamal ko su bax loolu bokku na ci li wone ah, ne nit ki mi nga aw aw yon ngir am al naka nak non batay bokku na si liy waral xanaa moy nak ngay bayyi xel ga yu bax yi di top seen histoire di leen waaw di topp suñ Tuubaa radiyallahu anhu di ko bàyyi xel ak asalafu saabeex topp suñ mag ñu don la am don sax mel ni man na fagu fàggu nak au aw fan doon aw ba am dara jooju ba na ne waaye nak jikko yi pas pasi yi lan amatut ah jàpp na ne moom lu baax bi kay ko am in kay gur boo góorgóorloo mën nga am lu baax waaw ndax yalla moom lim lim am mang mu den da koy maye rek kenn ku ne fa fa nga bëgg yem suñu borom yow yaa fa yaa fa yaa fa yëm kenn ku leen sa kemt lay kon su fekkee ne da ngay da nga da ngay faral di bàyyi xel nit ku baax di roy ku baax man nga am lu baax waaye fekkee ne yow moom lu bon rek ngay xool lu bon ngay roy kooku tamit ala kulli xaal moom lu bon rek ngay ngay am naka noonu tamit maarafatu niamullahi tabaraka wa taala wa tafakkuru fiha mooy ngay bàyyi xel ne xéewale yàlla yi di ci xalaat yenn saa yi waaw nga xam ne lii lii lu am rek aduna bi nga xam ne la bul bul jàpp na diw mooy joxe nangam déedéet jàpp na yàlla mooy joxe lu lu mën a doon di si xalaat di bàyyi xel yàlla waaw di bàyyi xel yàlla beneen bi si tegawaat mooy ngay bàyyi xel nag faatu surtout loolu nag toog ba si yàgg sa xel dem si faatu nga bàyyi ko xel loolu loolu mbokk yi loolu loolu lu mat bàyyi xel la même bu dul xanaa sax loolu loolu tuyaaba la jékki-jékki sa xel na yar si faatu nga xam ne yow mii fi nga toog nii saa mën ngaa jékki-jékki ñu jékki jekk ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nga jékki-jékki sa xarit faatu nga diw mii kan ñoo daa ànd te moom gisatuma ko ngay xalaat yu mel noonu yooyu tamit day waral nit ki nekk aw yoon bu baax day day tax nit ki tamit am ak am al alxanaa naka noonu tamit euh, fexe ba lépp loo xamante ni lu bon la nga gàddaay ko waaw nga gàddaay ko surtout nag bàkkaar yu mag yi surtout bàkkaar yu mag yi nga jëm a gàddaay yépp sàcc njaaloo rambaaj jëw yooyu nga xam ne dafa dafa dafa bon nga fexe ba yow sa kéemti laay kàttan nga nga nga gàddaay ko katch moy wax lo xamanteni lu lu wérul la yooyu tamit nak mom moom mom jamono ji dafa dafa dafa yomb lol surtout si réseaux sociaux moy internet bi ah, nit ki mi ngi mi ngi def dara jappé wuko lu amul fekk lolou ndak ndaysan lu amul la ba ci ba ci tisaara xibar bu amul jappal na yow yow yaa ngi yaa dimbalé ko koy def ko lu amul la té légui yomb da ngay gis ben ben ben way rek tok fam tok bind ben ben ben ben mbir yow tam nga fexé ba am ko daal koy tisaré lolou tamit ñu di ko moytu bu baax baax ndax jamono ji iblis daf na daf na jégé lool saytan daf ñoo jégal lool ah jégal nañu lool sax jégal nañu lool légui nak pour ñu fukk ñu lu yomb lay doon kon euh, pour ñu tënk ci yoy bu baax baax bay ci xel da da si am solo naka tane bokku na si li waral nit ki am alqanaa moy adduha ñaan yalla nak, fay tol nga ñaan yalla te xam yalla moy joxe waaw yalla mo ne ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma doon leen jam yalla di ñaan jam yalla diko ñaan ndax amna yalla joxe. te boo am na ay waxtu yoo xam ne boo ñaanee yàlla yàlla mën naa nangu sax ñaan loolu tamit nga nga sellal si kéem tolluwaay kattan di ñaan yàlla loolu tamit dese dese dese mën a xel bu baax baax. naka la tamit taqwa taqwiyatul imaanu billahi taala nga am ak pas bu gëm nag bu dëgër si yàlla gëm yàlla waaw gëm yàlla mu leer na la yow lii ngay def yaa ngi siy xool yàlla yaa ngi si bàyyi xel yàlla waaw am na ay bàkkaar yoo xam ne leer na la yaa ngi bàyyi xel yàlla na lii kenn gisu la waaye yàlla mi ngi lay gis loolu mooy dëgg-dëgg gëm yàlla. waaleykum bi mujj mooy al yaqin bi anna risqa maktub nga am yaqin tamit ne wërsëg kat yàlla moo ko bind mooy wa maa min daabatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa jàppal ne lépp looy wërsëg yàlla moo ko bind te parnas bu yàgg kenn ku nekk bala bala bala sa yaay ëmbee si si biiram yàlla wax na fi nga war a jaar étape par étape daraja par martaba par li nga war a am lépp yàlla fàggu na ko kon yooyu tamit bu fekkee ñu ngi koy bàyyi xel rek mën nañoo bañ son sonn yàlla yàlla defal ñu tawféex يالا يالا دافني طويل لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا رسل وتوفيق يالا الذين يستمعون الخول فيتبعون اغذنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم البركسين والسلام عليكم ورحمه الله